jazaaka yaa xiloof rahima mawlaaka xayral jazaa wa muna daarayka awlaaka jazaaka yaa xiloof rahima mawlaaka xayral jazaa wa muna دهرك أولاك فلا بأنك إن نزوردا أبدا وذاك ربك في دنيا وأخراك فدوا على الصدق والإخلاص مجتهدا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 mbokk yi ñëwaat nañ ci ëttum ndigal di ëtt boo xamante ne bii ki ñuy waaj a fàttaliku wala ki ñuy waaj a tudd suñu ko tuddee yoon wépp danañ xam ne ak jagle am na te moom amoon nag jagle ci Serigne Touba Xaadim Rasul kooku mooy kan moo di Cheikh Ibrahima saar Njaañ borom Jasaaka ñu toog nag ci ëttub sëtam boo xamante ne bii way juram di bàyyi Serigne saar mi nga xamante ne bii moom la njëkk a tuddee Serigne Touba Xaadim Rasul ci pàkkub Touba bii moom la ñuy waaj a fàttaliku ñu toog ci ëttub sëriñ Ibrahima Khalil saar mi ko fi nekkal ñu ñaan sun borom may ko fan wu gudd ànd ak wér-gu-yaram te defal ko mbooleem rakkam yëpp. mbokk yi xam ngeen ne juróom-ñetti fan ci weeru kor yi saa yu ñëwee xel yëpp danañ dem mux-mux ngir lan waajal bisub sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul ak fàttaliku jàmbaari lislaam di bàyyi Serigne Sarr bis boobu nag moo deg malaat Serigne Ibrahima Khalil Sarr dem ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha jëlee fa ndigal waaye nag jaar kër maam Cheikh Ibrahima Sarr jaar ci sëriñ Cheikh Ibrahima saar ñëw ci moom nag mu toog dajale ay rakkam ak taalibe yi ngir ñu waajal bis boobu ngir fas ko yéenee fàttaliku. moo tax danañ jox kàddu gi sëriñ Ibrahima mbay jóob mi nga xam ne mooy wax ci turu taalibe yi su noppee ñu jox sëriñ Mor Thioune mi wax ci turu ci ci jëmmi Baye sëriñ Sarr su noppee ñu jox sëriñ Abdou Khadri jóob su noppee nag ñu jox Serigne Basirou Sarr mi nga xamante ne bii moo wax ci turu jamaatu Baye Serigne saar su noppee Serigne Sohaibou Sarr mi nga xam ne moo yore kaddu Serigne Ibrahima Khalil dana yëkkate ay kaddoom waaye mbokk yi bis boobu daa am lu koy jiitu. la koy jiitu mooy lan conférence bu mag boo xamante ne bii sëti Seex Baye Serigne Sarr yi ñoo koy amal ànd ko ak mboolem fédération daayira yi nga xam ne ñoo aju ci kër Cheikh Ibrahima saar moo war a doon juróom-ñaari fan ci weeru kor yi conférence boobu Serigne Gana Messere Maxtaar moo koy amal bu juróom juróomi waxtu jotee incha allahu rabbi di di sept ñu tudde ko nag Serigne Cheikh Mor Thioune Murid Sadikh ba waaye dara jaale ko Serigne Thiendou Mbeng kon bis boobu la ñuy waajal nag ñu fas yéene yëkkati kaddu gi jox ko Serigne Souhaïbou mi nga xam ne mooy wax ci turu Serigne bi mu ubbi jataay bi su ko defee ñun ñëpp ñu maa si déglu Serigne Souhaïbou Sarr bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi donga bu xee bu doyadi mi ngi yëkkati kàddoom ci ndigalul sëriñam di kilifaam di wayjuram di sëriñ Ibrahima Khalil Sarr nuy ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yàlla na gën a wéral aw yaramam te gën a guddal fanam ci barkeb Cheikh Ibrahima Sarr Jasaaka barkeb Cheikh Ahmadou Mountakha muy jëmm joo xam ne nun donga yi di bokk yëpp noo koy sagoo te di ko tiitaroo di ñaan yan bi nga xam ne moom la ko bàyyam bu tedd ba yan yàlla na Serigne Touba dox digganteem ak moom ba mu ko yëg na yegg te yeggale nu ànd koog moom mu ñu ndigal nag nu teew fii tey war koo fàttalikul bisam bu nga xam ne bisu boppama mu ànd koog doomi boppam yi di noonu ak bi yi nga xam ne danoo àndoon ak waajuram ba di Seex Sëriñ Saar bis bi nag di juróom-ñetti fan ci weeru kor yi mi bis bi ñu waree bu dellu see incha allah ci nii nga xam ne noonu la ko Sëriñ Fallu waxee rek bis bi fàttali rek la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na fa shakkar fay na shakra tanfa'u mu'minin moo tax rek nu koy fàttali waaye xam nañ ne kenn ku nekk fatoo nga ko bis boobu nag. sëriñ bi nee na bi naaw bi mu ko yëgalee Cheikh Mamadou Buntaqa mi kilifaam ba wax ko ca lam ko wax laataa muy woote jataay bii daanoo woo nun ñi ay rakam keroog fii lañ dogoo si nun ñëpp moo wax leen lam jëlee fa sëriñ ba ak la ko sëriñ bi de jeesalaatal ndigal la nen kan ka nak nag mu stop la ca sas wa nga xam ne moom nga ca war a bay ba lépp sotti bis boo bii nag moo jub si te yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm mi ngi koy tàmbalee nag ci njabootuk ma mboolem ma Mamadou Moustapha ba ci Cheikh Mamadou Mourtada bayiwu ci kenn bayiwu ci fenn mboolem ñi nga xamante ne itam dañoo amoon ak xalaak ci seen maam yi ci seen digganteek Serigne Touba muy seexi Serigne Touba yi la ca tàmbalee ca ka njëkk a ba ca ka ca mujj a ñoom ñëpp ñu ngi ci biir woote bi ndax mbir mi seen bira jëmm jooji nag di seex Serigne saar dafa am ñu ko bokk ñu bokkal seex Ibrahima Sarr jasaak te yàlla defal ko taw yi ñoo ñii ñëpp itam nag bi leen seex Ibrahima Sarr juree ba noppi Serigne Touba leen yar ni mu yaree Serigne Touba ni mu yaree Cheikh Ibra Sarr mu njëkk ca kon Serigne Mouhamadou Sarr mi nga xam ne Serigne Cheikh Ibra Sarr mi ngi ko tudde woon bi sallallahu alayhi wa sallam tef togtal ca euh, te kii fa nekk di Serigne Abo Sarr mi di xalifaam ak mboolem njabootu Serigne Moussa Sarr gépp toftal ca itam Serigne Abo ba Serigne Abo Bikirin Sarr mi nga xamante ne moo fi nekkal Serigne Bakke Sarr ak mboolem njabootu Serigne Bakke Sarr gépp toftal ca Serigne maam Cheikh Ibrahima saar mii nga xam ne moom la ñu war a njëkk a tudd waaye mooy sëriñ Fallou Sarr waaye it mooy xalifa Cheikh Ibrahima Sarr saar fine ci jamono yi ñu toll yàlla na yàlla gën a dëgëral taxawaayam te wéral ko ci barkeb sóori lan abadan ak mboolem njabootu sëriñ Fallou saar gépp teg ca Cheikh Mahamadul Bachir moom sëriñ Mor Diarra Sarr ak mboolem njabootu Cheikh Mor Diarra Sarr gépp sëriñ bi nee na bis boobu seenu bisa mbooloo ma seenu mbooloo liggéey ba seenu liggéeyee kenn mosu leen faa jëkk kenn mosu leen faa mujj la muy def mooy daf leen di fàttali rek waaye xam na ne bis bi moom façon ngeen ko te taxawee ngeen ko na ngeen ko daan di soññ it bu baax a baax doomi boppam ak jarbaatam yi ak taalibe yi muy daayira bii nga xam ne moo lëkkale mboolem lu sëtoo ci Cheikh Serigne saar ñu tudde ko jamaatu Cheikh Serigne saar xam naa ne Serigne Bassirou dana ci yegg si léegi loolu itam am na waxtaan wuñ ci war a def woo xam ne Gana Messere Maxtaar buñ ne suba moo war a def conférence ba loola it bi mbir mi amee sëriñ bi sarsé ñu ca lenn ci wàllu communication boole na gone yi àndoon na ma ñoom ba dem njaareem demoon nañ ba ci xalifa ba di sëriñ Maam moor ci sa ci sa ndigal ko joxe sëriñ bi mu sant lool te gërëm te xamal ne kët Cheikh Mor Thioune moom sëriñ Touba moo ko boole woon ak Cheikh Ibra mu ne ko bu ma la tee moo ma la wan waaye itam nag keroog bi nga xamante ne Cheikh Mor Thion wàcc na liggéey itam sa wajuru tedd wa di Cheikh Serigne Sarr la Serigne Touba woo mu ne ko kaay yóbbul ma sa bàyyi Cheikh Mor Thion mii Touba defal ko la mu gën a bëgg ba mu àggee seetul lenn lu dul denc teg ko ca wetu Cheikh Ibrahima Sarr la jàpp ne loolu yi a bëgg ba mu dikkee ba mu ko waxee Serigne Touba daf ne ko baa defal nga ko loola mu ne ko ah, dem naa ca wetu Cheikh Cheikh Ibrahima a de foofu laa ko def mu ne ko defal nga ko la mu gën a bëgg loolu yi rek ndax ñoom ñaari yooyu yikk di koy feddaliwaat ne ko seen ñaari kër yi àjjana yi niñ dëppaloo ni la seen ñaari kër yi àlla seen ñaari kër yi adduna eh, mu dëppaloo ni la seen ñaari kër yi àjjana yi dëppaloo kon bu ngeen delluwaatee ba delluwaat ci liggéey boobee defal ngeen ko def ngeen lu baax def ngeen lu mat la ca des nag muy woote bi ci njàngum alxuraan ndax sëriñ bi lool daf ko cee ñor lool ndax seex sëriñ Saar kët xañ na buñ demee ba ci waxtaan wi nu war a waxtaan di ngeen ci gis fi ko alxuraan toloon ak yar ak liggéey kon sëriñ bi nee na yéen ñi nga xamante ne yéenay commission bi séq loolu mbooleem daara yi nga xam ne dañ koy tàmbalee ca daara yi boppam ja nga xam ne sëriñ Modou doomam moo ko taxawee lu alxuraan ji gën a bari te set te sell noonu la ko yittewoo durusum xasida yi ak salaatu ala nabi yi ak basmala yi lépp lu ci waay mën a am ak lim ba nu mu mën a toll nañ ko joxe nañ ko daan jox ñu andi jébbal ko ko bu fekkee jébbaluñ ko yéene ko nga xam ne moom lañ koy defal ñii nga xam ne ñoo war di ñëw itam muy taalibe yi ak nu ñu mën a ñëwee te léegi nag jamono xaw a yëngu ci rëj-rëj yeeg coow li Cheikh Ibra Sarr ku dal la woon mbiram lu dal la Serigne Saliou laa nangoo ca làmmiñu boppam Serigne sëñ Moustapha euh, euh, sëñ Mbacke Faa Jamaa ko ko doon laaj mu ne ko bërigo bu diis gann day bërigo bu fees dell de boo koy bërëng ci ci ci ci gadorong kenn du dégg la def waaye bu ca dara nekkut kenn ku nekk dégg gërëng-gërënge Cheikh Ibra Sarr nag daa fees dell moo ko tax a dal kon ñun ñu tënku ci moom nañ tënku ci faddum ala sidqi wal ixlaasi mujtahidan fi sirri wal jahri kaytan masayaka nañ tëgg nañ tënku ci dëgg dëgg ak sellal su ko defee suñu may day gën di yëkkatiku ca àdduna day gën di yëkkatiku ca àllaaxira mbooleem ñi nga xamante ne dañuy ñëw sëriñ bi nee na autorité yi mi ngi leen di ñaan mbooleem taalibe yi nga xamante ne dañuy sëfi oto jóge Ndakaaru ñuy jóge Thiès ñuy jóge Kaolack ñuy jóge Louga ñuy jóge Touba ñuy jóge faneen fu mu mën a doon ci biir réew mi na ngeen xam ne la ñuy andi andi wuñ ko ngir kenn sëriñ bi rek lañ ko indil te yéen ñëpp yéen ñi ci biir yéen ñi ci kaw tali bi njabootu sëriñ bi ne ngeen yombalal leen yoon te sëfoor si buñ yàkkamti ndax loo mën a dawit boo egsee da ngay taxaw kepp dal leen te teey ku ci gëmmentu itam rawatina sa si nga xamante ne dañuy roñ di dem ak a ñëw di roñ di dem ak a ñëw sëriñ bi nee na mi ngi leen di jox ndigal képp koo xam ne doyloo nga ci sa wërsëg ci bis boobe yàlla na sa borom ubbi say wërsëg te dootu te dootu te dootu ba faaw loolu it mi ngi leen koy ci ñaan bu baax a baax a baax kon nag mboolem taalibe yi mboolem mbokk yi sëriñ bi nee na bis boobu lam ca soxla mooy alxuraan ji mooy xasida yi bayiwut kenn bayiwut fenn bayiwut ñenn lépp lu lu lu bokk ci ahlu bann ahlu ahlu mbakke ak noo ca bokkee lépp ci bokk ci mbusoo bi ak noo ca bokkee lépp loo xamante ne da ngaa bàyyee woon say gent ñëwoon ci Serigne Touba ñëw bàyyee Serigne Touba sa bopp bàyyee kook boppam ba Serigne Touba def lam ca def ca yow ne la dellul fa nga nekkoon boo demee nga nekkal fa yàlla te nekkal fa rasulullah boo fa nekkee ku yàlla digal ci ku yàlla dogal ci mànd ak yow yar ko ba mu ne nurru des na koo fekk defar ko kon képp koo xamante ne lii Serigne Cheikh Ibrahima Sarr tibbee woon ci Serigne Touba Cheikh Serigne Sarr tibbee woon ko ci Serigne Touba sa maam wala sa baay tibbee ko ci Serigne Touba na nga xam ne bis bi sa bisa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asubillahi mina saytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci nabil Moustapha sangu sang yi di ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fa loolu te ànd ak wér ñu ngi ñaanal Cheikh Ibrahima Khalil. moom Cheikh Serigne Sarr mu Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ suñu borom defal ko fan wu gudd wu ànd ak wér ak wérle ak wërsëg wu yaatu moom njaboot gi ak taalibe yi barke borom Touba ñi ngi yëkkate suñu kaddu ci jamaxatu Cheikh Serigne Sarr ci njiital Serigne Bassirou Sarr mi nga xam ne si ne moo mag ci sëdi moom Serigne Moodu di ci teg Serigne Moustapha sar moom Serigne Bassirou saar jaamu Serigne Touba di ci teg Baye Serigne saarum mu Serigne Abdou Sarr ñi nga xam ne ñoo mag ci sëdi di jiita it ci nuyoo bi ak siyaara bi sëriñ Ousmane Diouf mi nga xam ne moom lañ samp muy jëwri ni jamaxatu seex sëriñ Sarr bi likkale mbooleem daayira bi nga xam ne mooy sëti seex sëriñ muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw foofu waaye a nekk ci réew mi ak ci njiital sëriñ Modou Sarr mi nga xam ne moo jiite jamaxatu mox mox mu bokk muy benn bànqaas bi nga xam ne benn bi dañ ko dénk sëriñ Ousmane benn bi ñu dénk ko sëriñ Modou Sarr ñi ngi woo mbooleem daayira yi nga xam ne dañoo aju ci kër Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ foofu daayira mën a nekk rek ñu ngi lay woo ci bis bi ci njiital jamaxatu bi sëriñ Ousmane Diouf jiite ko ci ndigalu sëriñ Bassirou saar moom sëriñ Modou saar ak mboolem daayira yi nga xam ne ñoo nekk Touba Mokh-Mokh ñu bokk ñoom liggéey bi ñu ci daan jàpp démb ak bërki démb ñu ngi leen ci soññi kenn ku ne nga taxi woon daaw ak daaw jéeg ñu ngi ci soññi war ren di ci woo mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju ci kër Cheikh Ibrahima Sarr ci njiital sëriñ Abo Sarr ak mboolem fédération ji nga xam ne aju nañ ci kër Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ foofu fédération mën a nekk rek waa jamaxatu Cheikh sëriñ saar ñi nga lay fàttali liggéey bi nga xam ne dañu ko bokk te kenn fàttiwu ko mu jëm ci Touba Mokhmokh ci ndigalu Cheikh Ibrahima Khalil ginnaaw ba loolu jàllee it ñu ngi ci woo waa ëttu mbir na saar njiit la di sëriñ Papa Sarr ak Soxna Gay ak mboolem ñi aju ci ñoom muy góor mu jigéen muy mag mu ndaw ñi ngi ciy woo waa coxna gi nga xamante ne si ne Cheikh Ibrahima Khalil waajuram di maam Samba Xari Cissé fekk baax moom it mi ngi leen di woo mboolem njilli soxna ma awa ka ca kaw ba ci ba ci gën a suufe ñu ngi leen koy yëgal bàyyiwuñu kenn ñu ngi koy yëgal ñi nga xamante ne si ne it ñoom lañ bokkal liggéey bi te aju ci Cheikh Serigne Sarr te fu ñu wàllee yóbbaale Cheikh Serigne saar fu ñu waaje it yóbbaale Cheikh Serigne saar ñu ngi leen soññ bu baax ci liggéey bi ak taxaw bi nga xam ne si dañ ko war a taxaw démb ak bërki démb nañu taxaw démb taxawee ko bërki démb nañ ko taxawaat tey na tey gën a dëgër démb ak bërki démb lépp loo xamante ne si nit da ko ciy jaayante ak lu mu mën a doon muy ñukk wala muy ñàq wala muy ñàkk ñi nga la ci soññi suñu kemtulaay kàttan bàyyiwuñu kenn nag képp koo xam ne dégg nga appel bii mooy carte bi nga xamante ne si ne waroon naa ñëw ci yow mu la muy téléphone bi nga xam ne waroon nañ ko yëkkati mu jëm si ci yow wala muy ndaw li nga ne mu jëm si yow ci njiitu Cheikh Ibrahima Khalil ñi ngi woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn. jërëjëf mbokk yi woote baa ngi noonu muy woote sant ak fàttaliku sant sun borom subhaanahu wa taala moo ko digle fàttaliku sun borom moo ko digle ñuy sant nituk yàlla. di fàttali ko nituk yàlla di sëriñ Cheikh Baye sëriñ sëriñ Baye Cheikh sëriñ Sarr moom sëriñ Ibrahima saar Njaañ borom jasaaka war a doon juróom-ñetti fan ci weeru kor yi sëriñ Ibrahima Khalil nag wax na ne bi mu jotee kilifaam di sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yëgal ko ko la ko yëgal mbooleem buntu kër yi sëriñ Touba yëpp bàyyiwul benn buntu kër waaye noonu la ko yëgalee nag mbooleem koo xam ne sa maam jaayante woon na ak sëriñ Touba Xaadim Rasul moo xam muy Mbàkke Kajoor moo xam muy Mbàkke Bawal wala muy daaru salaam wala muy Touba wala Mbacke Bari wala muy Njaareem fu mu ci mën a doon nee na mi ngi lay yëgal bis bi di ko yëgal it mbooleem umma islamique bi bàyyiwul benn buntu kërub lislaam ndax li yëf yi kat lislaam lañ koy defal kon nee na mi ngi ciy séentu ñëpp nag di ñaan nag képp koo xam ne jóg nga teg sa tànk mux-mux ngir jëmmi bàyyi Serigne Sarr wara ngir jëmmam mi ngi ñaan sun borom subhanahu wa taala mu dugal la ci soori dan abadan joojee nga xam ne Serigne Touba nee na naaru góor la wu bàyyi ko woon àjjana ñëw àdduna sëf bàyyi Cheikh Ibrahima saar ak njabootam delluwaat àjjana nee na mi ngi ñaan ku teew mux-mux yàlla na la yàlla tegal ci kaw naaru góor wee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xayral jasa wa muna daarayka awlaka